ful bi ak li nga xamante ni ni mooy supporters yi ñoo koy tee ak si tey nag ñoo ngi yebal bàyyi fi nga xamante ni mooy Parcelles maa ngi fi biir Pikine bëgg waxtaan ak waa Pikine bëgg waxtaan ak amateurs yi bëgg waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy ay supporters Ama Baldé aarama topp ma ñu doon dugg fii nii xool Jules Badiane moom naka lay réactionné woo ci affaire yi ah Jules nuyu naa la Jules ci loo ne ci sant bu baax baax maa lay bëggee naka naka naka Pikine. Pikine a ngi nii rek moo ngi neex de. Ah. mais ñu gis euh, comme Modou Lo Ama Baldé taxaw na. bi mooy deuxième face to boo xamante ni. Hmm. ñoo ngi koy def mais chaque fois. Hmm. face to bi du yegg. dëgg la waa face to bi nag gëmuma mu yegg parce que ñaari mbëri ñoo ni toll. Hmm. parce que Ama daa am ginnaaw Modou Lo daa ay mbëru dëkk lañ. li may wax promoteur bi man sama sañoon face to bi mën na ñàkk. mën na ñàkk. nan Modou Lo toog koñam ñu defee face to face Ama toog koñam yëpp ko en direct ci télé bi. ñu wax quoi parce que ñaari mbëri moom fu ñu am fu ñu présentation day jóg parce que lu yàgg la nekkul tey lu yàgg la te Ama mënul canaliser booy parce que ba muy wax booy yi toog leen seen kër booy mënul leen toog ndax Ama ñi koy supporter ñëpp da leen a xam. Mhm. moom yàllaa ko defal lool. Ama bu nekkee mille supporters la neuf cent quatre-vingt yëpp xam na seen tur. parce que da ko dund ak booy mais lan moo waral chaque chaque ñëw ba yegg si mais Modou Lo doom fa nga xamante ni foofu la ñu war a tasee ñoom ñaar mais bii soo xoolee bii passé Modou dañ ko jox heure tamit hmm. Ousin dañ ne ko 17 heures et demi na nga ñëw Ama ah, ñu jox ko 18 heures kon Modou Lo jàpp naa ne bu ñëwoon 17 heures 30 kon coow du am parce que bu jiroo isaat bi toog ñun duñ coow mais bu toogee ba Ama ñëw njëkk a ñëw ñoom ñu mujjee ñëw kon moom rek foofu rek def na faute te tamit ñoom ñu mu àndaloon yor nañ ay arme Modou Lo ñoom ñu mu àndaloon yor nañ ay arme te yaakaar naa ne boo dem ci suuf yor ay arme te boo yor am boo ay xeer lañ xeer rek lañ mën a lañ lañ la mën a songee man damay ñaan Luc Nicolaï na yemale affaire bi Modou loo toog seen koñ Ama toog seen koñ ñu def ko en direct ci télé bi ku nekk ñuy ñuy wax la li ndax làmb ji jaana boppam ba pare. mais dama dégg damaa dégg waa Parcelles yi nee nañ. waaw làmb ji ñoom gañewuñu ci dara. yéen la ñu may chance su fekkee nag ñi la na continuer. Ah. dootuñu bëre ak yéen lan nga ci wax. waaw dëgg la Modou su bëre wala ak Ama tey am na ñeneen ñu mu bëri bëreel parce que Modou Lo da doon bëre ak ñeneen ba nekk roi des arènes. si yaa may mhm. kon nag moom bu ñoom bu ñu waxee foofu làmb moo leen boole nekkul Ama moo sàkku bëre ak moom mais làmb moo leen boole Ama naa ay preuve ma war a bëre ak Modou Lo Lo instant yii daa bëri ñi si kaw ñëpp amatul ku mu war a bëreel foofu kon il est temps mu bëreeg Ama parce que Ama dafa def performance bi egg mu dégg Ama mu ne su fekkee ñoom ñemewu ñoo ñëw nañ ko defee akapes moom mu fekk si leen déggoo pël bi nee na la moom kase su ko neexee yor moto wóor ndakaaru ba ndakaaru daj moom moom yàlla defal na ko sañ-sañ boobu ak boobu loolu suñ borom moo ko def muy fit boobu ñoom buñ paree ñun ñëw nañ pour fekk si leen te xam naa ne boobaa tamit day indi beneen violence mais man li li ko laa laay waxal su nekkee mënul nekk la jël bato fexe Modou Lo ak Ama dem ba ci liggéey gi defee ba signature bi xanaa kenn du leen topp. Mhm. loolu mun na nekk. nañ dem fii ci port bi Ama Baldé jugal ko si bato dugal Modou fi bato yóbbu leen ci benn bato bu mag teg leen fa ñoom ñëpp toog def seen signature kenn du leen toog coow du am. man solution daal fi ak ñoo ngi koy defee nii. Euh, sécurité bi doyul gis nga ne daal eh, signature bi du am. du am bu ñu indi woon armée bi du am. parce que ñoo ay ay doomu aadama lañ ay nit la ñoo ay njaboot luñ ne di aar ay mbër bañ ba ba lañuy rey duñ ko def. parce que du mbëri du leen ko jaral ñoom tamit te fayekuñ fay fay ñu leen si dara booy mënuñu leen a canaliser ama mënul canaliser booy waa parce mënuñoo ko parce que ñoom ñaar geer bu yàgg la Modou Lo ak Ama dafa yàgg jamonoy jamonoy ah, booy ñaar fii la woon bëre ak Dolph ba gis nga ba làmb ja jeexee autoroute bi ñoo Modou Lo booy Ama yi xeex nañ bañ demee Mbour xeex nañ te ñoom ñaar bëreeguñ te loolu xam nga ne yàgg na te rank ñi boobu day gée li ñu ko laa da lay ñaan te yàlla tax làmb ji ñu dañoo bëgg mu am te yow yaa mën a jël say précaution ba làmb ji am jëlal ñaari mbëri yóbbu leen ci jéggi-jéggi yóbbu fa bato ñu fa contrat bi benn booy du leen topp masi bi tas masi bi tas man am ci lu may wax kontaan naa waaw di ñaanal nag ama làmb ji mu jëm yàlla na ko yàlla defal ndam lu gaaw te seddu guy parce que bu nekkee xor rek lay fay non dina door roi des arènes incha allah kontaan naa ci ñoo far Ouzin jaajëf Hmm? gars yi ñu ci bëri nee nañu signature Modou Lo Ama Baldé la moo tax mënut a àgg parce que bi ma deuxième fois ñu si bëri nee nag waa Pikine yi ñoo yàq signature waaw avant tout di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp. waaw kaddu gi rafet na mais tamit euh, ah nit ñi tamit ku nekk ak ñi koy waxee rek quoi mais man jàpp ma ne supporters yi ñoo yàq ñoo yàq signature yi man jàpp ma loolu quoi parce que Modou Lo boo xoolee li muy def nii liñ ko def rek moom dañ koy fay borom quoi parce que moom na fàttaliku daan na def yu mel nii. te kam ka daan defal da ñëw di de signature ak moom kon moom bu ñu ko defee lu mel ni war na mën ñëw signature loolu war koo yàq signature contrat am quoi. kon da gis ne Modou Lo moom moo ñemewu ñëw ba fi ñuy signé. loolooy problème bi Modou Lo moo ñemewul Ama Balde nañ ko waxta dee Modou Lo ñemewul Ama moom yii dañ la def Eumeu Sène te teewul Eumeu Sène day ñëw signature ba mu neex mais kon Ama bu ko defee waru mën a tax muy daw. daa ñemewul booy bi loolooy problème am. mais waa Parcelles nee na nañu combat bi amul ñu ciy gagné ndax dañ leen a may sens mais su fekkee ni ngeen na continuer ñoom da leen jaral sax ñu bàyyi combat bi. waaw mooy bëgg a daw gi rek Modou Lo daa ñemewul ama man bu combat bi balaa maa gëm na dina am arbitre sifflé parce que Modou Lo daa laal dafa jël koo xamante ni war na ko ni li muy jaay ci moom la ko ci moom la ëppee dafa bëgg a daw kombaa bi rek. loolu rek booy wax ji mais mu neex mu naqari combat bi dinañ ko bëri te buñ bëri Ama dina ko daan. maa ngi dégg Ama Baldé nee na euh, su fekkee Modou Lo nangu te ñëw moom mën na ko fekk ba parcelle bi ak APS ñu defee foofu signature bi. non loolu lu wér la Modou bu ko neexee biir këram Ama Baldé ci boppam buñ ko woowee na ko biir kër gi ñu def fa signature contrat bi Ama ñëw loolu ma wóor na ma man ku bëgg a bëri sa combat da lay jaral lu ne mais Modou Lo waru ñëw ba ci signature bi même booy sax buñ ko doon giree sax. war na mën a def taxaw seer oto bi ba gaa li jënd situation mu ñëw dugg ci stade bi def signature mais war woon ñibbi. war woon ñibbi mooy yëfi ragal yi rek mooy yëfi ragal mais waroon na dem gaare oto bi ne la ba li jënd situation yi ba mu leer mu ñëw duggaat ndànk ci ñibbi mais warul ñibbi quoi. naka nga gisee naka nga gisee signature boo xam dañ koy jàpp di ko jàppaat ba tey mënut a ànd. waaw signature bi pour man nag euh, ci promoteur bi la quoi parce que Luc Nicolaï boo xoolee signature yam yëpp moom defu ci benn effort quoi pour mu pour man. moom Modou Lo daal boo xoolee seen diggante daal am na lu am na lu xaw a lënt quoi. waaw ci ban côté. non parce que ñoom ñaar signature yi Modou Lo ñëw te doo ko dégg mu def benn réaction du dara xam nga day noppi rek quoi. ah da daal li dafa xaw a far ci côté Modou Lo ndax lii bu ko Ama Baldé defoon mu réagir. waaw nuru na loolu quoi nuru na loolu trop quoi parce que li ko laal ba léegi dégguñ mu def benn réagir quoi ak par rapport ak acte yi Modou def nii quoi. moo tax affaire yi jaaxal nañu de. xaw na xaw na luus na luus na luus na trop. oui. kontaan naa ci ok merci. mais nuyu naa la. fay naa la. Euh, tey ñu ñëw doon def reportage ci ki nga xamante ni mooy Modou Lo ak Ama Baldé gis nañ bi mooy deuxième fois ñu def face to mais face to face ba tey mënul yegg naka nga gisee loolu. man dama gis promoteur bi moo pareegul la. promoteur bi pareegul. waaw loolu jaaxalu ko li ni ko la événement jaaxalu ko bu paree dina am. su paree combat am dina am moom mais moom pare nañ xaar. moo li ñu ko laaj moo pareegul. ñaari fës fës ñu gis Ama Baldé day ñëw ba yegg mais Modou Lo mënu am fi nga xamante ni fa la ñu war defee séance bi benn bi mu nekk seen TV beneen bi mu nekk bi Pikine euh, ba ci waa passé li nee nañu ñoom ñoo leen di may sens te bu affaire na continuer nii boo xefu duñu yeggal combat dañ koy bàyyi ak yéen. waaw day fekk du contrat rek du ay wax de affaire bi contrat la daa jot avance jot avance bu ko neexee moom mu gedd te bu ma nee fay rël nga am na gedd bu mënee fay waaw bu ko neexee signature bi na ko yóbbu passé ñu fekk ko. ah loolu la Ama Baldé wax. amul problème ko neexee mu yóbbu ko passé ñu fekk ko kenn du dem Ama kese dem si. mais lan moo tax ngeen jàpp ne Modou Lo da leen a ragal. non du loolu moom wax ju yàqu la ay Modou ragal Ama ku wax wax ju yàqu la. mooy waa Pikine la ñu ñeneen ñi waaye man du ma ko wax. du tax doo ko wax am na takkusaan bu ne. Mhm. sport la Modou loolu jaaxal ko. dëgg la Ama Baldé bis jaaxal ko. Mhm. a promoteur bi moo war a fulaal affaire yi mu am. Luc Nicolaï musul laaxoot si ginnaaw promoteur bu ndaw def ay signature bu dee yaa ngeen seetaan lam tëgg na fi événement bu ne kon bi jaaxalu ko bu bëggee mu am day am na naka soo jël waxoon su ma su ma am signature dañuy jàkkaarloo force nit boo def daal dañ si ànd fu fulla ak fayda comme ni mu daan def bu fekkee dafa ragal mu bàyyi may gars yi tëggu ko <laughs> dafa yàgg Adama gis nga bu fekkee dafa ragal na bàyyi gars yi ko xaar ma jàll nii ci yow noo gisee noo gisee signature bi. signature bi moom ni ñu ko gisee moom mooy nice mais Modou Lo daal lañu gis mooy erreur ak promoteur bi. Modou Lo naka la defee erreur. mooy dañ kaa jox heure dix-huit mu war a ñëw xoole ba ama jël ko si signature bi te loolu yoon. jàpp nga ne bu Modou Lo teeloon ñëw mën na dugg te du am problème. du am problème parce que ama ama bu ñëwee day booy yi. moom bu ñëwee ba dugg ama bu ñëwee nice. man Ama Dia sa laamu ji amaatee Ama Dia waat ko waaw. léegi bu fekkee dañoo naan uh-huh. mooy sécurité bi teg ko si yoon teg ko si yoon ah, moom nice heure bi ñu ko joxoon la ñëw di huit heures ñëw na moom nice egsi na booy mi Ama ah, moom leen. Mm-hmm. booy lu leen neex la ñuy def Ama ah, moom leen bu Ama doon tey booy dañuy ñëwaat saldel mais ma gis ma gis ma gis keroog bi Ama di génn mu mel ni keroog la woon bésub làmb ji. waaw Pikine moo mel noonu du fi moom de waa Pikine la. Hmm. Pikine ñoo mun làmb ñoo mun ñoo mun bis quoi loolu si waa Pikine la bu doon benn boy tamit noonu lay demee. bu paree moom lu mu yor dañ kaa soxla waaw roi des arènes bi daa war a jëli. ngeen ko war a jëli paase. incha allah kii jëli. kontaan naa ji waaw ah, kilifa gi nuyu naa la. waaw ah, fay naa la. Ah, ñu gis euh, combat Modou Lo ak Ama bale bi bii mooy deuxième face face boo xamante ni ba léegi ñoom ñaar mënaguñoo taxaw wax ñu ci bàyyi nag nee nañu bu mujj bi bu njëkk bi yéen ko yàq bu mujj bi yéen ko yàq te waa Parcelles nee nañ leen may chance donc ngeen bëgg a ñëw bëgg a saltel face parce que ñun jóguñu pour saltel bu fekkoon pour saltel dong moo ñu tax a jóg kon ñun du ñu jël combat kon ñun si boppam dañoo jóg pour jël combat pour daan Modou Lo ci ci ci ci daan bu leer naññ. fessi fessi nag buñ ko waxee mais lu ne mi ngi ci biir. kon Modou Lo bu fekkee dafa ñëw gis ay xeer yoo xam dañ ko sànni au dehors de l'estade ci biti la mais moom dafa waroon affronter ñëw dugg ci biir stade bi bu boobaa xam bu baax ni kat mook Ama la mais fu mu toll nii loolu mu def noonu dafa daw. léegi nga gis ne dañoo sànni ay xeer ci biti mu ñëw gis xeer yi xaw a xof. waaw mais mais moom ci boppam bu fekkoon dëggantaan ci boppam lu muy wax mi ngi ci moom kon moom ci boppam dafa waroon a ñëw affronter loolu romb ko dugg ci bi jàkkaarloog Ama kon loolu dafa war a dëggal boppam ñëw taxaw jàkkaarloo jàkkaarloo Ama ci boppam ñu song ko mu xam bu baax lan la xam nga fu mu toll nii dara xewagul. Hmm. ay face to face la kon moom ci boppam bu fekkee day daw face to face dafa mel ni dafa am lu muy daw ci biir mais muy daw nag naka leer naka leer ni loolu mu dajeek moom. kon munu kaa ñàkk bañ a daw daal. da nga ne daal dañ ba noppi di am lu ñuy jiixi jaaxa ci yéen xaw a ragal tuuti. non du question de ragal sax question de moytu la parce day bañ a daanu léegi loolu dong la du leneen. làmb ju amagul mu bëgg mu bëgg a daanu léegi mën naa ne. mën naa ne parce que moom ci boppam dafa bëgg a delloo avance pour l'instant nii lu muy def nii yëpp delloo avance dong da bëgg coow li coow li daf ñu ko bëgg a xëpp ñun waa Pikine te loolu duñ ko nangu. duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba moom moo waroon a jël initiative am romb booy yooyu dugg ci biir stade bi ñëpp xam nikat kat Modou mii kat. Guerrier bu ñu dem wax ci moom mi ngi ci moom mais fu mu toll nii affaire ragal da def dafa daw daa daw. te daa war a ñëw. daa daa war a ñëw parce que buy fekkee ñëwul mais kon affaire bi moom moo yàq signature bi man man door bi moom laa koy jox parce que moom ci boppam dafa waroon a ñëw dugg ci biir stade bi affronter xeer yooyu yëpp dugg ci biir stade bi jàkkaarloog li nga xamante ni moom moom moom moom moom da war a moom da war a bëre man loolu laa ci gis de. kontaan naa ci waaw bég naa bu baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp toutes les menuisiers yi nga xamante ni ñu ngi Pikine kontaan noonu tey ci Ama Baldé parce que ñun dañ fee nekk association des jeunes menuisiers euh, professionnels di liggéey fii di exposer pour ñun suñu njëriñ la daal kon Ama bu fekkee day bëri ñun dañ koy solliciter dañuy ànd ak moom ci loolu ñu ngi kontaan nag ci Sénégal bi yëpp sport la rek xam nga le maire gagne jaajëf merci